Euh, benn instant nga jóge ci mbapat fas yéene dem dóorante ji n'est-ce pas euh, nga dugg ci arène bi sa premier combat dans l'arène nga ñëw expéditif ñëw rek du genre sa adversaire da nga ñëw ne ko xajal mooma jàll mu nekkoon sa diggante ak Jali Coor bu école de moo faral nu mu fa demee ah. yomb ci yow

amaana ñii duñu leen xam mais sanam yi dina leen xam. ok ay pôles yi. pôles yi jàngal bëri pôles fu mu nekk muy Joal. ok ndaanaan la. papi xam ko. exact yi. waaw ndax ñoom ñoo fa nekkoon. daan ko. ah nii lañ daan defante nii lañ daan defante. Badou Real Barça la woon. voilà derby la woon. ñoom ñaar derby la woon. ndeysaan te ñun kooku moo ñu jàngal. pôles yi. pourtant Dakar fii ay xamuñ ko bu baax. déedéet te amul ku ko dàq bëri ci àdduna pour mu.

sañ-sañ ba woon abo abo sa actuellement mi ngi mi ngi France ok bayna bëre mom tamit pareil pareil te bobu fekk na mi ngi jóge ci Arena Tour bi defoon ay prouesse première saison Arena Tour bi waaw parce que bobu le tour ëpp le coow xeeboon na ma trop sax parce que demone na ma signature ba mu soma daane ma daanee ma dem lang waat nekk apprenti ma ne kon di nga nekk parce que bobu dafa beuri ak ñu la ëpp coow ñu la ëpp tour jàppoon na ni kon du yàgg mom ba pare li problème moy fi ma doon ñaanlo moom dafa daan kooku dafa daan ñaanal. yow ki la daan ñaanal. dafa daan ñaanal dafa daan ñaanal. ci biir ne la man mi ngi bisee. paa bi ci boobu moo wóor boppam dem si yàlla so papa la woon sama lépp la woon. moom moom ne ma ñëw la parce que sama ku may ñaanal ci àdduna bi ak lu mu mën jox ci àdduna bi boo ñëwee fi ma lay teg da nga koy daal. waaw ma da nga koy daal. jour bi waaw ñëw ma appliqué loolu. la même chose. ma ñëw xanaa ma ma mais nag mais nag euh, combat de déclenchement mu nekkoon sa diggante ak Elton Junior bu école bi Balla def ay prouesse à Guédiawaye. Mhm. bëri ay boppat daan ay ndaanaan yoo xam ne tey ay canoor lañ ci laama ji sama kanam. Mhm. yaa may dégg ay tournois yoo xam ne gaa yi dañ ko daan ñàkkante. yaa ngi may des fois ne des Mambala Nooro Kill des fois Ama sax daan ñëw samp Pambaay on ainsi de suite mais ça waay daan des defal lu yéeme sa combat ak mu taxaw. sama combat moom Nous mu taxawee. Hmm. ñi ko xam. Hmm. jël. lay parce que la mais bon nyom ham ma. xam nañ say qualité waaw xam nañ mën yi xam. waaw ndax xam nañ rek mais ñoom moom lañ defoon favori bi daal moo nekkoon favori ba bi ñu dugg boo yoo xam ne sax dañoo xaw a ti mu ma ëppee woon ak mais ñi ma xam xam nañ ne su ma ko jàppee ma teg ma xool ay ñoom kaan yi ñoom laay njomb ñoom boo xoolee bi ñu bëree ba ci après laay woo na ma <laughs> laay woo na ma na ñu ko sori moo tax mënoo ko jàpp da ngay fexe nga donc sa suuf. laay laay ñombal la conseillé loolu. ne la ne ko. mu ñooxu ko rek bu la dóoree dóor bi du daal te di ko mën a jàpp. bi si loolu maanaam boo ko même bu dóoree dóor bi du am impact. total bi ok. ci laa donc sama non jàpp tànk ko mu déclenché mbot ma longi beneen tànk bi mu déplacé wu. nga téq beneen tànk bi. muy bëgg a déplacé wu nga mbaar ko ma dëpp. nga daan aitoon si ñoom. laa nag ñu ne ah waa ji day bokk par la force. Mm-hmm.

dama daan woo samay ménagère ku ci nekk chaque jour suba nga man jox ma combat ba ñu mën naa bëree rek. koo ma jox baax na comme ñu mbëri def nii dem seeti yaag diw mais dañ naan après CNG mooy force loolu pour nga ñëw ngeen gisee mais dama daan naan jox ma rek ku ñëw baax na. mais. mais un an deux ans deux ans jàpp trois ans gars yi commencé laa ah, benn instant ñu joxaat la combat. Mhm. nga nangoo gestu dem jëli gaaro non non boobu bëri na Kimza laa bëri na pare. Kimza Kimza rakku rakku Akim. Kimza moom nga bëri moom nga bëri pour le retour. moom laa bëri bu ma retouraatee ci trois ans yi. bëri affaire yooyu. Ah. mais boobu gisuma sax ni dafa mën bëri. man mi ngi jógee ci victoire digganteem ak Ama bu Rebeuss. waaw loolu lañ ma wax. loolu fa dem mais góobu woon loolu. ok mais la même chose nga appliqué. la même chose ma ñëwee ci biir lam ci biir mu nekk gauche.

boo jàppee loo jàpp yow ak nag day daal la même chose la même bi nga jàppee rek ma jàpp daal muy sa cinquième victoire muy sama cinquième victoire nga jóge ci nag ci nga gestu may sens kii euh, Garo parce que boobu toogaan naa itam deux ans xam nga un an bëriwul ma ma ne ma Garo Gare ñëw rek garaaw yaa ko jiitu ci làmb yaa ko ëpp tur ci làmb mm-hmm. yaa ko ëpp palmarès mais garaaw boobu toogaay bi yàgg na lan moo doon yow gisatoo leneen lu dul foog ngay bëri. waaw naay bëri pour prouver pour man. Oh, d' accord loolu laa def. Euh, jour si au stade Iba Mar surprise générale coup de tonnerre mm-hmm. man fi ma taxaw xam nga rek damay suivre mm-hmm. <laughs> mais li xew bu mu xewee maanaam dafa mel ni dama absenté quoi. comment ça se fait nu mu demee pour man maa ngi xaar ralenti fi ma taxaw nu mu demee est ce que est ce que lii am na est ce que je me suis posé des questions la Lamine Sène bëreewul daan. Mm-hmm. was di avant tout man j'imagine pas nga daanu ci stade boobu noonu man maa ngi doon imaginer sa waay buy daanu ñenn ca kaw ñoo koy daan man man foofu laa doon xalaatee. aussi maa ngi doon imaginer mbër mi bés buy daanu ka koy daan dina bëree ba dee dina bëree ba bëree ci kaw air mais sa diggante gaaro gaar da nga ñëw bëree woo non combat combat amul nga daan. sama diggante gaaro gaar man mi ba léegi comprendre tu n'as rien compris. déedéet kon kon kon manqué wu ma <laughs> loolu yow bokk position. parce que combat bi li ma ci entraîné mosuma ko entraîné ci combat. cinq heures du matin daa ñëw fii daa yegg kaane bi mm-hmm. man moom ak Zil ak Boy Si. Mm-hmm. <coughs> Mbacke Faye. Mm-hmm. ñu daan dem Tinge di sëfante dama daan sëf trois personnes. trois personnes gaa yegg kaane dama ko daan sëf boot Maodo dama daan boot kaane bi boot Mbacke yéegu ñëw ci kaw Tinge. mën nga ñëw tëdd ba yegg ngoon ñu demaat noonu tegaat ko ci.

yàlla moom mooy yow bul sàcc film bi nga ne ci mukaay yi boo laalee bagage yi non mais ñu war rek ñu war rek bideel boobu. Mm-hmm. man mënuma ko le temps rek moom lañ ma doon soog ko seetee ko man du ma xam fan laa ne après kii ak nokos kaan ak nokos. man mm-hmm. nokos mu ko sottee ko moom toog dafa di nelaw ñu xëy mu ne bideel boobu. bokk ci lépp les bi man non ma ça veut absenté mentalement wala physiquement. lan je comprends. je comprends parce que dal na bien, ak bien, bien, ak bien, daal. wax ñu ne ko eh, ut xam nga li problème. bien, li problème mooy ma tegal la pied nga daw songu boo ñëwee sama pied droite nga fay fekk. en boo neex mën naa ko mën naa la mbot. mën naa la soit nga dóor ko tànk soit. soit naa def lu ma mais mais man damay sentir ay coups di dal sama ak kuma laa ma daa ma loolu laa am ci kaw bi nga daanoo ci ma daanoo. bi nga daanoo ba pare. ba pare film bi jeex dama daanu si yoo gis muy daw. ok man loolu laa am ci combat waaw fi ma taxaw maa gis nga yuuxu. parce que boobu saa mag mu ngi sax mer di aalu ni kii warulaa daal nga siisu xulli bët yuuxu parce que gëmu woon ne man dinaa daanu ci arène bi heure bi man mii gëmu ko woon <laughs> déedéet man mosuma gëm ah man mii di gëmu ko woon te gëmu woon ne tamit combat bu ngay ñàkk déedéet mais après itam da ngay jëlaat lépp delloo sa xel ci yàlla xam ne suñu borom moo ko jaarale foofu bu ko itam du am wala am la rek dama waroon daanu jour boobu parce que ma gi su ma génnee sax pour musique yi problème lay doon benn defet boobu waaw ah, na mais ah, ah ah man su ma bëree bañ daan ma du garaaw mais bëriwu ma ok ok d' accord d' accord je ni dem woo daan waaw mais su ma bëri ba daanu sport la damay jàpp ne dama koy daan dañ may daan. d' accord bu bëri woon teg nga teg nga teg mu teggi ba action am kenn déséquilibré daanu. da ngay jàpp ne d' parce que boobu fonctionné nga. voilà te fonctionné. ci te donné à parce que dama koy wax des fois nee naa man ñaari mbër yu yu bëre action réaction action réaction am ku daanu dama naan garaawul. ndax ndaanaan daan na ndaanaan daanu na. mais mbër mi dem bëriwul daanu kooku du ma ko gisee. Mhm. mbër bëri na fii. comme moom non combat daanu lendemain bi dafa xëy woo ma dama grand bi ma ne ko naa mu ne maa ngi jégalu ma ne ko non bul jégalu ak bëri man boo bëri woon daanu boo ma ne grand ma ne la non woo daanu foofu du ma nit mais par la suite après dem vacance wala da nga bàyyi bëri wala. Euh. ba ma fa jógee su guddi gi laaj toog. xaw ma nu ma amee nelaw ma bëri sax. tëdd tëdd petit nag bu jig ma yeewaat noonu nangu ma génne ñu ñëw may fekk sax si biir génneel affaire bi dara ma génne dem ci aas ma jox ma combat ñu ne ko dina la joxaat ma ne ko que combat ni mu demee nii foog ñu wanewaat leneen foofu foog nga fay bor bi waaw aas hmm. ne ma daa koo fi def nañu solo bi tëj ma topp ko topp ko topp ko ba tey jusqu'à présent jusqu'à présent ah hmm. ba tey ji may ma ne ma nekk roi des arènes hmm.

wala yéen dama muuru lan la mooy sama parce que bëri nañu fi nekk yàgg fi jiitu tegu leen poste boobu mais bu ma demee ba am loolu ci moom itam damay wax ne a gore bu benn poste boo xam ne poste clé la ci ci ci ci euh, arsenal mystique bi loolu yow tamit da nga ko koy delloo ba mu mat parce que su boobu gis naa nga xaw a jàppante gars parce que man du ma seetaan damay suivre man détails yi damay damay damay rek bàyyi mu seet maa gis nga xaw a profo gars yi beneen sens. parce que boobu làmb ji moo laaj loolu. ok dam yi la woon. waaw làmb moo laaj loolu ay nappante noonu foofu. ah kay après ñu taxaw ah, ah, parce que man booy am na ñu ma fi jiitu foofu yàgg. Mhm. amuñu loolu ci moom. Mhm. te itam benn côté sama papa gaañoo. Mhm. dafa jóge fii dafa jóge fii dem ba sowat pour jaareel. jaareel def nañu fi nekk def nañu fi nekk. kon da nga ko kooku itam ñu ma gën a bëri. Ah. te amul lu ah, moo tax ma ciy tax. loolu di combat euh, Balla Gaye Modou Lo yaa ngi fa woon. maa ngi woon mais maa na mais jour combat Eumeu Sène Modou a gis nga actif. Ah. nu mu demee noonu. parce que dañoo jógee ci combat Balla Gaye défaite. défaite jàpp ne ay xale lañ ay xale lañ. ah ngeen aussi aussi ngeen ci. waroon gestu comme gars yi ni ñuy gisee waroon ngeen waroon gestu jël lu xaw a yam tuuti ngeen xool seen kanam jël le numéro un dans l'arène gars yi ne tey ngeen dee ñu toog waxtaanee. xanaa xanaa xanaa Modou Lo amul staff jóge ci défaite contre Balla Gaye dem jëli Eumeu Sène xanaa day.